baax di la siyaar. waaw ñu ngi laa fay bu baax. tur bi. Jabel Touré. Jabel Touré promoteur. waaw. nga organiser combat bu mag mu dox ci diggante Xoyantaan ak ak Double Tyson combat boobu bi nga koy taxawal euh, métti woon na wala yomb na. waaw non métti woon na. waaw métti woon na because euh, euh, lu ma la mën a wax daal xëccoo la waaye yàlla dimbalal ma man la yàlla jox ndam li wax dëgg yàlla. nan nga koy waajalee. non ñu ngi ko waajal bu baax fu mu nekk nii wax dëgg yàlla Xoyantaan di nekk roi des arènes Gambia xam Double Tyson nekk roi des arènes Kaolack ñaari combat yooyu combat du yomb déedéet du yomb wax dëgg yàlla ñu ngi ko waajal bu baax a baax a baax because ñu ngi war a def face to bi on di tatin next month moo nekk face to face soobee yàlla combat boobu moom wax dëgg yàlla Gambia yëpp moom la ñu waaj wax dëgg yàlla ak senegal tim because man am naa fa ay nit Balla Gaye mooy suma mbër Lirou Diane mooy suñ mag wax dëgg yàlla ñu ngi leen si invité ñoom ñëpp pour ñoom ñu ñëw wax dëgg yàlla. te dubul waa Kaolack la. Kaolack kenn du des. Dakar Kaolack yëpp Dakar moom soo soo ne Dakar ne Kaolack ne Kaolack ne Dakar wax dëgg yàlla. Mhm. yan presse nga fas yéene liggéeyal ñoo xamante ni ñu ngi Sénégal. non presse bu ñëw rek bu ñëw rek mun naa liggéey ak yow bàyyi ma benn presse xam nga soo waxee loolu ne kii laay liggéeyal kii la laay liggéeyal yow ñëpp suñu ñëwee da nga xam kan kan nga si mun a liggéeyal. Wassare Lamb par na pour liggéey ak yow. ñëwee pare na pour liggéey ak ñoom wasaare lay wax te lamb ji dama koy wasaare lamb ji lambi politique la NPP ñoom moom lamb ji teg ci bi ñu tuddee ko suma papa di président Alaaji Adama Baro waaw te moom lañ tuddee drapeau bi wax dëgg yàlla kon wasaare la waaw incha waaw mooy mooy mooy face to bi treize bi ñëw nii mooy face to bi diggante xoyantaan ak double Tyson incha allah dinañ ci liggéey liggéey bu am solo bu soobee yàlla ba gën a taaral bis bi bu soobee. benn problème wasaare jërëjëf. <laughs>